bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallaahu alaa sayyidinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi wa sallama tasliimaa kamaa wahaba lii xayra kulli shahrin bilaa shay'in mina sharri fiihi wa laa ba'da wallaahu alaa maa naquulu wakiil muharram safar rabiul awwal rabiul saani jumaadal uulaa jumaadal saaniya rajab shaaban shahru ramadan shawwal dul qiadati dul hijja min alxadimi ila almaxdumi miizaanu laa yantahi ajruhu kaylun wa miizaanu min alxadimi ila almaxdumi Bassirou Assane polytechnique euh, yàlla dogaloon ñu euh, amoon tawfeexu liggéey ci barab bu màgg bu tedd bi ñu di ci sant sëñ bu baax a baax a baax liggéey bi ñu ngi ko tàmbali ginnaaw bi nga xamante yeggale woon nañ liggéey bi nga xam joxoon ko fële ci université bi muy penc mi ñu doon liggéey foofu ci daara alxuraan ji ginnaaw bi la ñu suñu defal taw tawfeex ñëw fii ci ginnaaw ci maam Thierno joxe ndigal bàyyi ko ci sëñ bi ñu doo amal barab liggéey gii liggéey bi nag bi ñu fi ñëwee eh, waxtaanee sëñ Abdou Lahad bi ñu xoolee sous-sol bi fii ñu taxaw nii sous-sol la am na benn partie bu nekk ci sous-sol bi côté bële ne moom bâche moo nekk suufam réservoir bi xam mooy alimenté ndox kii bi waaw bi fi ñëwee nag waroon koo liggéeyaat dañoo gisoon ni sous-sol bi eh, dafa yàqu ndax bâche bi humidité bi mu doon indi ndox mi nga xam ne dafa demoon ba ndox mi da doon seen yàq fer bi ba tax fer bi dal bi ak poto yi ko yan woon yëpp dafa dafa dafa dafa fer bi da ko yàqoon ba mu ruyee ba ba ba daanaka toj moo tax bi ñu ñëwee nag ñu ne duñ fi ñëw di liggéeyaat nii ci kaw rek fekk li ci suuf ni mu war a mel melum ni moo tax ñun waaw dañoo gasaat bi dañoo daan fii ñu taxaw koo daaneel dañ koo daaneel ba fële quatre-vingt-dix mètres carrés yëpp waaw suuf dañ gas nañ ba jot fondation bi fondation bu njëkk bi daanaka un mètre lay tolloo rek par rapport ak kii waaye hauteur sous-sol bi mi ngi toll ci ay deux ak un bi nga xamante ni moom lañ def ba daj fondation bu njëkk ba doo ko sampalaat yeneen semelle habillé waat poto yi nga xamante ni moom moo fi nekkoon créé waat yi côté bi ay ay poto yu bees doo ko defaraat daal daal bi nga xam moo nekk ci kaw ñu reprendre daal bi nag après ci lañ doo ko def ci travaux finition yi ak li li plomberie bi électricité bi peinture bi ñu reprendre ko doo doo ko jubli ci li nga xamante ni mooy aménagement bi lépp boo ko xoolee mi ngi toll ci côté bi 90 mètres carrés la beneen saal bale quatre-vingt-dix mètres carrés la ko suuf si tamit àgg na ci quatre-vingt-quatre mètres carrés boo ko baalee surface bâtie bi yëpp mi ngi toll ci deux cent quatre-vingts mètres carrés terrasse bii tamit moom découvert la woon dal bi ci dal bi ñoo ko ñoo ko ci dolli ndax Sëñ Abdou Lahad dañ ñoo xam ne day dugal ndox moo tax vingt-huit mètres carrés ñoo ko ci dolli adapté architecture bi ak architecture jumaa ji terrasse bi nga xam ne fa lañ duggee noonu noonu léegi diggante bi tamit dañ doon xalaat wut ay extracteur d'air ndax humidité waaw kay nii nii nii la meloon fer yi ah, ah, nii la meloon donc day sol bi léegi nii lañ ko ab ba ba ba mu àgg ci suuf ah. waaw poto yi dañ koo toj dañ ko toj dañ koo toj reprendre ko daal di génne grava bi doo ko koo defaraat léegi nañ daan toog sëñ Ablaat ndax ñoom dañ daan yooyu dañ ko dibiti carré yooyu lañ récupéré waat liñ ci waxtaanee ñun nag buñ mënee am mooy escalier boo xam dina leen permettre ñu mën a communiquer ànd sous-sol bi waaw mooy sous bi waaw ci lañ créé fee benn escalier boo xam nga ne de nga xam dinañ permettre ñu mën a dugg ci sous-sol bi yéeg architecture duñ mën a duñ génn ci biir infirmerie waaw loolu moo doon a doon kii bi léegi nag euh, montant ah, ah, ah, partie infirmerie bi rek naa ne partie travaux yi Ah, démolition bi ak. Ah, béton béton béton bi nga xam ne daal bi ci kaw ak bi suuf. boo ko estimé travaux plomberie bi mi doon senn mi ñu ci waxtaanee ak maam Thierno mu amoon na yéene tamit mu xool ko wala dañoo wut entreprise bi spécialisée en cuvelage nga xamante ni moom ci wàllu di wax moom moo ñëw xool ko defal ñu devis daal def cuvelage bi ba nga xamante ne nii ndox mi yàlla def na ba léegi sennagul bi mu paree ba léegi testé nañ ko yaakaar naa war naa ëpp lu mat une semaine wala deux semaines boobu léegi yàlla dogal na gisatuñ ndox muy seen parce que waaye moom am na garantie boo xam ne ni assuré nañu ko ko dee ñu xool ko fii ba ci kanam xool ba xam du seen naan loolu mooy boobu loolu deux millions cinq cent moom lañ ci lañ ci lañ ci defoon euh, réservoir waaw waaw bii bii bii lañ wax ni mooy alimentaire bi bi soroor bi waaw dafa am pompe bu neefee voilà mooy yéegal bii ba ca ba ca kaw léegi lu jëm ci wàllum équipement itam mi ngi ko xoolee mi ngi toll ci six millions mooy équipement yi nga xamante moom lañ ci def yëpp ni koy liggéey ñu ngi koy liggéey ak docteur yoo xamante ne xam nañ xam nañ matériel xam nañ tamit lu jëm ci wàllum kii waaw noonu lañ ko noonu lañ ko kii bu ko defee lépp mi ngi toll ci quarante trois millions montant travaux yi loolu la waaw. Basir ñu ngi lay nuyu baax ci turu Serigne Afia Bousso ak turu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci barab bii nga xam ne dañ ko def ci jumaay Tuubaa ji ngir kenn koo xamante ne ñaanuñu ko yàlla. moo ko àdduna ay am ànd waaye ku am jafe-jafe ci biir jumaa ji boo ñëwee da nga xam ne am na barab boo xam ne dañ fi waajal ngir ku am jafe ci biir jumaa ji ñu mën laa sowe ba doo fi am benn jafe-jafe looloo taxoon nga gis ñaari barab yi nga gis e, benn ba ci na ko doon 84 mètres boo duggee bi suuf tamit doon na 84 fii ñu taxaw doon 28 mètres carrés ci loolu dafa ci sa taxawaayu rafet at mu jot leenee ñu di ko ci dolli nga renforcer ko liggéey bi kon loolu tamit danañ la koy leeral liñ fi faj par bis nag kenn xamul nu mu toll màggal gi ndax dañ koy mujj ndax li wër jumaa ji ñu fi faj bu ñëw suba la màggal la ñuy la ñuy tàmbali bu màggale bu suba suñu bàyyi bu dee fii nag fi gën a suba ci ajjuma ji la ñuy tàmbali nga xam ñetti fan màggal buñ màggale ba mu am ñaari fan kon looloo tax liñ fi jëfandikoo ci eh, liñ fi faj ni kenn xamu nu mu toll waaye liñ fi jëfandikoo ci ay eh, garab tamit kenn xam nu mu ci matériel boo xam ne ay spécialistes yu bari yu wuute ñoo fi ñëw di faj loolu nag ànduñ ko lu district bi ak euh, privé bi ak ñi nga xam ne ñoo doon taxaw ak benn benn nit ñi nga xam ne dañoo am yéene di ci jàpp. kon barab la boo xam ne nañ la ko wax woon daaw da nga dalaloon leen soññ leen ci soññ googee dëgëral na lu bari bari ci liggéey bi liggéey la boo xam ne tamit nii mu dikkee Cheikh Mouhamadou taxa sant daayira Taysiroul Asir bu Polyclinique ñu ànd ak suñu maam Thierno taxawu ko liggéey bii. ñun ñi nga xam ne ñooy waa daayira Moukhaddamatoul Khidma sunu xol sedd na ci bu baax gërëm nañ ci bu baax liggéey bu rafet rafet la boo xam ne ta ta taxawu nañ ko ñi ngi ñi ngi ñaan nag nga ñaanal ñu fii képp koo xam ne ni ñëw na fi yàlla sunu boroom wéral ko ba dafa am benn jafe-jafe lépp luñ mën ciy taxawaay ci barab bi tamit nag yittewoo na ko ndax li fi nekk ci produit du doy liñ fi soxla yëmul loolu tamit nag ajjuma saa bu ñu demee ajjuma ju jot. bu bu onze heures dem jotee lëkkaloo nañu district bi benn poste dana fi ñëw ba quatre ba trois heures dem jëm quatre heures ngir kenn bañ am jafe ci biir jumaa ji barab bi li ko tax a jóg mooy ñi ne ñi am jafe ci biir jumaa ji looloo ko tax a jóg ku am jafe-jafe ñaanuñ ko yàlla yàlla mm, saafara ko looloo tax. Hmm? déedéet garab gi kenn fayut ñun ñun ñooy fexe bay ami garab bu daayira bi génnee dara jëndi garabam benn benn yu joxe seen addiya joxe garab wala nga joxe dara ñu génne la ko ci garab yi. lu ci bari cotisation ñun suñu bopp ca tàmbalee cotisé dem jëndi garab ñëw teg ànd koog pharmacien yi nekk ci gox bi ànd koog benn benn nit ñi nga xam ne am nañ liste boo xam ne xam nañ garab bi fi soxla liste yooyu ku soxla boo dikkee ñu jox la nga dem ñu teg fi kenn fayu fi dara lépp luñ fi def ngir yàlla la waaw bu ko defee tamit nag ñu sant tamit nit ñi bàyyi xel barab bi eh, ak war ma jim laaj ak teggi nim laaj te lépp loo xam ne sëñ bi Euh, jumaa ji yàlloo na ko ñu ngi ñaan ku ñëw ci barab bi nga xam ne barab bi spécial la boo xam ne bukkut nga nekk ci bañu fayukaay kon daal xam naa kaddu yi ci ëpp bu ñu noppee dañu jox sëriñ bi la la ci ay war ci soññee ci barab bi ak la ci soññee war ma ci barab bi loolu sëriñ bi dana ko jottali ñu jox sëñ maam Thierno mi nga xam ne moom la ñu sëñ sëñ bu booleel woon te bam ñu boole yow mii la woo nga boolewaat ñoo ngi moom moom boolu ñoo ngi ñëwee lépp jag tey jii ba nga fekk siwaat ko keroog ba nga ñuy waxee bool nag maam Thierno mu ñëw ñuy wër bi ak bisub tey bii bu baag léegi yéen a ja nga ci amoon yéen a joojaay egg kon lépp mën na ci maam Thierno. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi bi ñu ngi lay bu baax di la ziare eh, di jul di la ñaan sunu nuyu ak sunu ziar eh, nga jot lañu ko njabootu sëriñ Tuubaa gi yëpp eh, mu mel ne kon tey ci sa kilifteef ak ci ndigal li ñu joxoon euh, ñëw nañ tey ci barab bii nga xam ne moom lañ doon yeesal euh, muy tawfeex ju rëy ci ñun euh, ci ànd bu ci bokk buñ ci bokk ànd ko daayira tey sur laasir bii dajale ingénieur école polytechnique bu Thiès daayira bi nag gannaaw bu jaaree ci daara ju mag ji université bi euh, def euh, pénc mañ fa fa def sàkkuwaat ab liggéey euh, ma ma yëgal la ko nga jox ma ci ndigal nu ñu joxoñ leen fii ñu def fi liñ fi def muy 44 million yoo xam def nañ ko fi yeesal barab bi équipé ko yeesalaat itam réservoir bi bi bi yor ndox euh, kon ñu ciy sant suñ boroom bu baax euh, di sant waa waa ma ndax euh, jàppandi bu ñu liggéey bi ànd koog ànd koog mbooloo mii na mu gën a rafete lañ ci bëggoon lépp na am ko kon nag loolu dong lañ ci sàkkoon kon Mbàkke loolu lañ lay seereel di la sant ci ci taxawaay bi ak euh, di ñaan ñaanal mbooloo mi euh, soññal leen itam taalibe yi ak ñi àndal ngir ñu sax ci liggéey bu mel nii ndax euh, loolu rek mooy mooy njëriñ bi njëriñu bépp taalibe kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa rahmatullahi ñu ngi nuyu bokk jullit yëpp ak bokk taalibe yi ci barab bu tedd bi ñu nekk di jumaay Tuubaa nga xam ne barab bu tedd la mooy bi gën a barab bi gën a tedd ci ñun di barab bi ñu gën a fonk di barab bi nga xam ne lépp nekk kon ci weeru yi ci ngoonuk àllarba di boo xam ne xam ngeen ne guddik àllarba la fi sëriñ bi ñibbisoon Tuubaa ñu indi ko ci barab bi kon ñuy bég bu baax a ci jotaay bi di nuyu Serigne Maam Thierno Mbacke mu suñu Moussa Bassirou di nuyu Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacke mu Serigne Cheikh Gaïndé Fatma di nuyu waa daayira Taysiroul Assir bii nga xam ne ñoo doon defar liggéey bi waaye di teg nuyoo bi nag ci loxol waa daayira Muqaddamatul Xidma bi nga xam ne yàlla def na ñoo di fii di saytu barab bi ci ndigalu Serigne bi kon ci ndigalu Cheikh mu Mountakha ñu fi Serigne Touba tey boroom liggéey bi te lépp luñ ci def rek di ci ndigalam. ndax ab liggéeyam kenn sañu fee yëkkati puso te làqu ci ndigalam kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñu ne di jotale cant ak ngërëm ci liggéey bii nga xam ne def ngeen ko muy liggéey bu solo muy liggéey boo xam ne taw feex la ci yéen ngeen def ko ndax jumaay Tuubaa ji moom du ko ne sa jëf mën fee tàbbi ku neexul ku neexul suñu tubaay doo ko fi liggéeyal ndax mooy barab bi suñu gën a fonk kon nag sant rek leen war. ndax ab taalibe bi moom boo amee tawfeex liggéey jumaay Sëriñ Tuubaa ji war naa xam ne ajum faju na kon cant ak ngërëm ak soññu leen rekk ci des li ci seen kanam ñaan xam ne keroog Cheikh Mouhamadou Mountakha bi ñu ubbee keroog xaside ci eh, université bi daa woo suñ Youssou Diop woo suñ am beneen liggéey bu mu leen santaat ne leen dafa bëgg ngeen ànd ak borom yi ci dëkk yëpp xaside yi bi taalif bu ci nañu dajale baxru ba mu ko woy euh, xàjjale ko daanaka coono yi di bari waaye amuru dul wàcce kon loolu moo ci am solo wa'bud rabbaka hattaa ya'tiyakal yaqiin kon Serigne maam Thierno yooyu itam ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ndax euh, yàlla def na euh, liggéey bi université bi Serigne bi ko ko ci ma doy loo waat la tegaat ko ci sa waaye nga noppal ma ci ba def ci loo xam ne bu ma ci nekkoon du ma ci mën a àgg. kon ñu ñu ngi lay seeral suñu cant yow ci kanam suñu Tuubaa fii itam na gën a daaw laafiroom bu coono yu bare léeg-léeg waa daayira mu xado xam ndax ñoom bëgguñu karo bu daaw sax jumaa ji ma gis ne ak sooxe dana ci am ndax responsabilité bu bëri mën a koy defaan naa li ci jëwriñ nga dima ko taxawul kon bu lii amaatee heure bii la woon daaw boobu màggal Tuubaa gaa ngi jub kon bu agsiwaatee nii mu de mu am bii résultat kon loolu ak cant ci war kon ñu ngi lay ñaanal ba liggéey bi ñu yàgg koo ànd te doy ci tawfeex doy ci ngërëm Sëriñ Tuubaa. Sëriñ Abdou Lahad Mbacké yow tam ñu ngi lay sant ci lépp nag ci suñu diggante ndax lépp loo xam ne nekk nañ ci rek ànd nga ko ñoom ci taxawaay yitte ak ci lépp lu ci màggal bi ak ci leneen di jeexal na ci waa daayira Moukhaddamatoul Khidma di leen berla seen cant ak seen ngërëm di leen soññ itam nag ndax ni ma dama koy faral di seere leen bàyyi ngeen seen lépp. seen waxtoog seen lépp nekk Sëriñ Tuubaa bu dégg bëccëg ngeen di ko taxaw taxawaay bu rafetal nag boo xam dara desu ci ndax ku fàttali ko jumaa ji ni mu meloon bu njëkk nit ñi dañoo gaaw a fàtte wala dañuy gaaw a tàmm waaye ku fàttali ko woon désordre bu fi amoon bu njëkk ak ni mu na sooloo gi xam ne ay jàmbaar dëgg ngeen te lépp lu ngeen def itam lu ngeen ci yëkkati dara te demu leen ci sëñ bi laaj ko ndigal lu mu leen ci ñuy wax ndigal ngeen def fu leen yemloo ngeen kon nag ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ñi leen ñaanal bu baax yàlla suñu borom gën a dolli seen kattan gën a dolli seen gër gën a ubbi seenum xel itam ba li ngeen liggéeyal Sëriñ Tuubaa fii te muy lu mënta ñàkk muy tawfeex tam nag ndax fii moom mooy sëriñ bi comme tànn ba ba indi leen fi rek sooyoo kon ñu leen sant di soññi bokki taalib yi ñu gën leen a ànd jàpp leen rawatina ci wàllu garab yeeg yu mel noonu ndax ñaanuñ ko yàlla ñaanu yàlla kenn di fi ñëw di fi loroo waaye li Serigne Touba waxoon is laysa ahadun maasumun minal maradi kenn ku mën a wucc ci ci wér di amut ndem kenn mënu cee wucc nag kon faaw fàggu gu mënta ñàkk kon nañ leen ci jàpp le ngir xam ne loolu sooy bakkanu doomu aadama na ndax nit lu tuuti dana ko dal loo xam ne buñ ko teelee faj rek mën naa wér kon nañ xam ne ku ci dugal si jëf rek sooy nga bakkanu doomu aadama te wa man ahyaha fa ka annama ahya an-naas jamii'an asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh السماء jëmmi Sëñ Tuubaa yi ko bi moo ko doon yeesal moo ko doon koo xam daal seet si na sëñ bi loolu ay gën yoo xam ne sëñ bi dañu fi yebal fii la ñu xamal leen tuuti ci jumaa ak tuuti ci sëñ bi ak ci yoon wi doog leen def télévision yi réew mi yëpp. kon da ngeen di gis lépp léegi. waaw lépp lépp dañ koy kii te ay caméra ay caméra robot la. ok xam ne sajjuma yeeg euh, koor yeeg gàmm yeeg yi fi xew yëpp rek fi lañ koy defar ba mu jekk. door ko door ko génne joxaat joxaat yeneen yeneen yeneen organes. day def ci 24 euh, sur 24. 24 sur 24 lay doon. loolu nag euh, RTS ak seen yu mag yi bu ñëwee. dañ leen dañ leen jox benn lien rek ñoom ñu diffusé ko xam ne léegi comme ni ñu baaxoo daa def indi seen matériel yu bëree bëree bëri teg ko ci teg ko ci begg bi dootu ko jarati looloo tax ñu def fi euh, résil yi waaw bu dee bu dee bokk na ci waaye ñoom xam nga caméra yi du du du dëppoo ak ak ak biti gi ni mu kii waaye booba ay caméra yu ñuy ŋàbbalee doon bu dee bu dee bu dee Camara bu dee Camara Surwaayas yi moom moom yëpp moom bitig yeeg biir gi bitig lépp. yan fii wa yatlubu saa xusrin wa saa adabin bi durri wan nafri wal baydaa miidaanu ilmun wa saayun wa adabun wa makrumatun amman lahu taajabidaanun wa suudaanun inni laa ahmadu rabban laa sharika lahu léegi nii ci liggéey bi dafa dañoo am dañoo am ñoo xam dañuy jàppale ci liggéey bi ñu am solo solo muy pharmacie yi lëkkale réseau Diourbel si Mor Diagne moo ko jiite taxawlu ak Abdou Lahad Faye privé bi ak docteur Combaan ñoom mbooloo yëpp ba ci nay màggat mi nga xam ne moo saytu faj mi yëpp ba ci professeur Daouda Ndiaye at mu jot dafiy indi ay garab bare bari bari ji tey ji wax ginnaaw suba dana indi garab yi yooyu yëpp mi nag sëñ ñu boole woon ci paraxaan bi ñu koy ubbi kon ñooñu ñëpp nañu sant jat koo ci gis rek nga xam ne nga jotee sunu cant ndax liggéey bi moom lu ñu ci liggéey rek yaa tax ñu koy liggéey ne yaa dox suñu diggante ak sëñ bi kon nag loolu nag te te rafetal nga ko lool yaatal nga ko waaw waaw tàmbali amul fu mu yem. jërëjëf jërëjëf. ndax moom li ñu mënti ñàkk yéen a ngi ci rek. jërëjëf jërëjëf. xel mi ñëpp dal ci. alhamdulilah te loolu ci ëpp solo. alhamdulilah alhamdulilah. ku ne sa biir kër doomu ci doomu jaaxle. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf. li ngeen war a sàmm yéen a koy sàmm. jërëjëf jërëjëf. ah jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. Hmm. boo yoroon ku leen ci xas bëgg leen ku leen ci tàgg. ndeysaan ndeysaan di seeral suñu tubaab. ndeysaan ndeysaan ndeysaan jërëjëf mën naa koo seer mën naa koo seer bu wér. ndeysaan ndeysaan jërëjëf jërëjëf nga ñaanal ñu rek ñu bañ jéggi suñu bopp gis sëñ bi. إني لا مهد ربا لا شريك له على الذي هو